test test micro test c'est bon hein? Wow, Salam alikum, mi Long il il di Boubach. bu est defe naa ne ku xool samay interview barki démb gis nga li ma wax ki amu xoolu jël këram wàcce fa kaamil njëkk a génn def vidéo dama koy waxaat direct kooku moo yooyu ministre de la culture samay wax la te li may wax am naa ci sañ-sañ avant benn artiste Sénégal di génn di def vidéo la diva Coumba Gawlo Seck moo génn def vidéo wax ci ba pare tiim wàcce kaamil di ko mettitlu bala ñu ko jox kaddu dañ leen di xamal ne ànd naag ay musiciens am ànd naag ay sërëm yum bokkal nda ak baay waaye ànd ak yaayam ju baax ji nga xam ne ci lu baax rek lay dox jërëjëf yaay yal na la yàlla bàyyi sunu kanam moom moo gën a am lu ko metti su doon luy laneen luy indi Aziz ci dox la ak wax la ak jëf ak def teraanga moo koy indi kon noo ngi la koy jàlle ñu nit waa Pikine di ñaan yàlla sunu yaay am xolu muñ ñu déglu président Kumba la diva mu sànni ci ay kàddu neena ginnaaw bi nu santee yàlla julli ci yonent bi mu tedd mi nee na ñu ngi nuyu mbooloo mi ñu fi fekk ñëpp nuyu mbokk yi nuyu dëkkandoo yi nuyu xarit yi nuyu am di jàmm yi nee na ñëw tey bi nag nee na ñëw boo xam ne yoon la waaye gënalun de nee na bu nu sañoon bu nuy ñëw fii dañuy ñëwee ci beneen anam bu dul bii nee na mën na am yàlla moom ñëw fii tayam ak ay mbokkam ak ni ma ko waxee ñu ay musiciens am ak ay fansam fans club yëpp ñëw nañu ak musiciens yi nee na estafam mi ñëw nañu nee na yàlla nii la ko bëggee nee na ñëw bi nag nee na ñëw bi yoon la nee na li mu naan moom amoo koo ko jaale nee na dafa waroon toog ñu koy jaale ndax Aziz Azizu boppam la nee na Aziz doomam la rakkam la xaritam la nee na doomam la ndax bu sañoon jur ko ndax ci mbaaxam nee na ak kàddoom nee na suñu masaana waxtaan nee na su waxee sax nee na moom liggéeyam xam nga lépp daanaka personnalité la ak dignité ak def lu baax nee na ak exigence bi nee na su defee dara léeg-léeg mu me ah ne ko Aziz li mooy danaan day kontaan nee na daal di sukk na ko yaay bul mer loo bëgg rek dinaa ko def daal di fecc nee na su ko defee mu daal di retaan mu ànd moom ci ngor nee na ci saasi nee na ci saasi day daal di am kersa ndax bu Aziz ci saasi day fecc bégal ko ne ko yaay sama yaay mu am kersa ci saasi nee mu daal di rus ci saasi nee na comportement boobu. nee na bi nga xam ne moom la Aziz am nee na moom musul gis Aziz fu mu mere nee na musul gis Aziz fu mu xuloowe nee na musul gis Aziz fu mu géddee fu mu ko déggee mu am ak kenn benn xaar ma yàlla foo ko fekk rek day wax wax ju rafet day wax wax ju baax day fadeere nee na su ñëwee sax léeg-léeg ñu répété mu ni ko Aziz xam nga man munu maa fecc munu ko bàyyi ma rek may way munu ko déedéet kaay jéem rek mama nee na bu ko defee day jël temps liggéey bi niñ koy defee mu jël temps am bu baax nee na kon mën na ne tay ki nga xam ne moom la nu ñàkk ku am valeur la ñu ñàkk ku am valeur ci àdduna ku am talent koo xamante ni nii valeur ak talent moo mën a jar dina jariñ ay génération yu bari loolu loolu la leen waroon mën a waaye sunu borom nag teewul ni nee na terewut nit ñi nee na Aziz xëy na yàggu fi waaye talaam valeur am ak xam-xamam jot na jariñ ay ay xale yu baree bari nee na boo dee xool xale yu bari Aziz moo leen di formé moo leen di encadré. nee na lu muy def danaan ko Aziz ah, dañuy na de lii mooy profil bi nee na ko mosu koo wax du mu dugg ci lii wala leen danaan ko lii rek laa soxla moom moo koy lijjanti ñëw indil ko ko te bu leen indee bu ñu feccee ku ci ëpp talent rek sa morom muy loolu te loolu lépp Aziz ko doon def moom mi leen jàngal moo leen ëpp talent ndax na moom nag moo leen jox pas de danse moo leen di wax ni ñuy def moo leen di wax fi ñuy taxawee te da koy def ak xol li ñu gën a metti bi nu duggee fii suñu xol tooy dafa bari nee na danoo gis suñu yaay gis muy mag ak doo xam doom ni mu neexee ci xol xam ni moom dafa toog rek waaye nekkatul rawatina bi mu dee mag teg ci suñu xol sori nee na kilim kilibam bu bees bi bi war a génn nee na Aziz moo def casting bi tànn ñëpp image yaa ngeeg ñun ba léegi bu ñuy filmer casting bi daal di garder lépp nee na bis bu nekk bu xëyee woo Yacine kenn ci collaborateur mi ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy gérer affaire artistes yeeg lépp ni ko yasin ne ko kañ ngay tourné clip bi man day Yacine xaw ma ni léegi dang maa contre doo gaaw ci clip bi mu ni ko ñu ngi ci dañuy am ay réglage yu ndaw yu ni def mu ni ko damay woo sama yaay de samay woo sama mama mu ni ko yow sama noonu nga Yacine daa di kaf reetaan nee na bu yàlla defee Aziz mi def casting bi préparé yi nekk ca répétition yi nee na ba moom mii mu koy diriger ci yenn naan ko defal nii ñu war a tourner clip bi Aziz nekku fi fekkewu ko jotu cee nekk nee na sunu borom noonu la ko dogale noonu la ko bindee sunu borom a ni woon fu mu toll dina teg ci sama kanam ay yeneen activité yoo xam ni dina gàllankoor ba du ma tourner clip bi nee na bëgguloon Aziz fekke ko ni ko Aziz bëggee na ay ziwut ñooñu la bëggoon ñu fekke ko waaye moom mi nga xam ni moo wut ñooñu suñu borom bëggul woon mu fekke ko bëggul woon mu nekk ne kon ba moo la tox ba muy yeex nee na ba léeg-léeg mu naan lii lay yeex na boobu suñu borom lii la na moom nee na loolu bokk na ci li tax suñu xol tooy ba bërki démb nee na yàlla seede na ne am na fi image yi bi ñu paree mixage bi nga xam ne dañ ko doon def ci musique bi mu teg ko woo yaayam ne ko ñëpp déglu nañ ba pare yow kaay déglu nee na bi mu ko tegee mu déglu ba way bi jeex dafa jooy rek kott ko daal di jooy jooy yu metti mu ne xam ne le plus part di ngeen ko gis mu ne ko waa léegi looy jooy mu ne macha allah li may jooy yàlla na yàlla lafal la cat teg ci Aziz Dabala nee bi mu déggee way ci saa si dafa mel ne Aziza taxaw sama kanam daa di wax ay waxam jooy kon loolu yëpp nag mooy li nga xam ne mooy la suñu boroom dogal ñuy xamal sunu yaay daal ñun merewuñu Aziz benn yoon jéppiwuñ ko benn yoon nit ki dinga nga ànd moom nga jéppi ko nga ànd ak moom mere ko terewul ngay ànd ak moom danga naan natt bu ma yàlla boole rek la waaye doo ko tegu doo ko jox cër te doo ko teg place waaye Aziz bokkul ci ñi ma tegul place Aziz bokk na ci ñi nga xam ne fu ma ànd ak moom du ma ruus mukk du ma ruus fu ma ànd ak moom muk du fa defuk mbaadoo la du fa def ñàkk fayda du fa def luñ koy yabe du ko defee luñ koy yedde fu nu mës a ànd na ni moom ak Moussa Diop ci groupe la nekk ak Tange Tandian

gis Aziz mu toog di defar bàmmeelu baayam nit baayam dee na bàyyi koy milliard bis bañ ko suulee ca la xamatul ba ba te Aziz gis nañ ko mu defal bàmmeelu baayam mu mel ne ku fay tëdd naan fii laay mujjee kon kooku yàlla bu ko cat jiitu ci bammel ñun merewuñ ko nee na gëm na ni Sénégal macha allah kenn merewu ko. di xamal ne sunu yaay ni naqar bi nee na dafa jur Aziz rek moo tax moo xëy na moo xam li nekk ci buumu xolam waaye nee na mënu gënu mënu koo métti lu ba gën koo métti la Sénégalais yi ñi xam Aziz ak ñi xamul Aziz daan ko gis ci télé bi ñoom ñëpp seen xol dafa tooy na moom Kumba mii nee na fu ne lañ ko woo la diva nee ba ci Mali ba France ba benn Bernard Libo chorégraphe bi nga xamante ni mooy sit bi waroon def sur scène moo ñëw di euh, liggéey ak Aziz nee na daf koo ki doon liggéey ak Aziz ne ko ñun ñëpp suñu xol tooy na ndax Aziz nit ku baax la kon loolu lépp nag moo waral ñu ñëw tey suñu kër ñun amuñu kuñ ko jaale fii suñu kër la bu loolu wéyee ginnaaw Aziz nee na beneen bi tax mu ñëw mbokk gu yàggu dëkk ndax Modou Ba mii Modou Ba gawlo dafay fàtte sax day fàttane léeg-léeg bala sant ndax turam wi siiw ba na xam ko mooy Modou Ba gawlo koo wax mu ne Modou Ba gawlo ndax mbëggeel bi ma bëgg ba jël turam taftal ko soog sama tur nee na mën na ne Modou Ba la njëkk a xam Aziz te Modou Ba mii mosu koo doxe mosu koo waxe mosuma woo di wut intervention mosuma woo wax ci leen Aziz mosu la ñëw ci man it di ma Modou Ba lii di wutuk mbokk dafa xam ne rek ñoo bokk nee na du woon li Aziz doon ñëw ci moom sax di liggéey moom tax ko Modou Ba mii rek mën naa tax ma jàpp ko ndax Modou Ba nee na fan si këlëbam ñu def muuda mouvement gawla gawlo ñoom nekk ci fan bi ñëw ngi nii coog ñoom ñëpp ay dëggay ñoom mimi gawla ñoom kan gawlo ak ñaneen ak ñaneen ak ñang kolobaan ñoom ñii ñoo ko sos nee na booba ba ëpp na fukki at nee na Modou Ba mi ba ko xamee léegi mi ngi bëgg a yàgg de ëpp na fukki at kon mën na ne kóllëre bi yàgg na waaw nee na lu mu def rek ne Kumba Gawla ne moom rek mën naa ko koo jaale nee na bu nekkoon senegal mbir mi am suba bu mu xëyee dina yendu si ba ngoon mu dellu ba ñëpp xam na ne bi muy am fekkuma Sénégal nee na fa ma mën a nekkit la sa la sama xol fuddee nee ba mu déggee li muy wax ci Aziz mu mu dégg lu ñu war a wax ci Aziz ñun xamuñu loolu ci Aziz li ñu xam ci Aziz moy li Sénégal xam ci Aziz moy li aduna xam ci Aziz neena bi mi def message bi di def vidéo bi neena manatul won muñ motax mu génn def vidéo bi neena yàlla xam na ni téléphone am sax neena na nako na ko une heure du matin wo katim wo Taaj Sanda ne leen bu len nangu Aziz de nekuma fi dama sori ñu jël turu xale bi di ko sorxo sorxool nar a yàq réputation nañ ko lijjanti kenn ku ci nekk lam ca war a def na ko def ndax du yoon ndax nit bu dee mënalatul boppam dara nee na nee na ñun ñi fi des ñoo ko mënal ñoo koy lijjanti parce que dafa yomb duñ ko ba noonu na looloo waral nee na loolu rek la war a def mu génn def vidéo bu am solo léegi nag nee na lépp mënu koo wax xol yi ci ne bari na yéene yi bari na cofeer gi bari na naxar gi metti na nee na yaay ñun daal dama ànd sama yaay moo moom yaayu Aziz la ndax moo jur Aziz ndax dafa bëgg Aziz ndax ci xolom la ko def ak rakkam nday faatu nee na ñi ma àndal ñëpp ay rakkam lañ nee na ñii samay doom lañ nee ay musicien am samay staff ñii samay doom lañ nee na ñu ci bëri ay jeunes lañ ñenn ñi mu jur leen nee na bu soboon jur leen téele leen ma leen ànd ak musiciens yi ànd ñenn ci fan ci club bi ñëw seet si jaale sila la nee di leen gërëm yéen journalistes yi nee bi muy ñëwit it yàlla seede na ni nee na dañoo ñëw nànk ci bañ kenn yëg leen. nee na wax ma wax ma fi lu ci nekk ci ay journaliste ah, dana ko loolu de doy waar mu ne dama dañoo xër ci Aziz te xër ci yow ba tax na lépp loo xam ne ci Aziz la jëm ñoom ñëpp dañuy déplacé wu rawa rawatina bu dee yaa jur yaa jug di joxe sa kàddu ndax fi nga toll ci Aziz nee na ñu ngi leen di gërëm ñëpp gis nañ seen seen taxawaay nee lekku leen naanu leen nelawu leen ndax lu rafet rek moo tax nee na lu rafet li ngeen wéy di ko ci wax ñu ne ni ñaan yéen journaliste yi ngeen wéy di ko ci wax nee na Aziz kenn amul ci moom loo wax ci moom lu rafet lu ñu xam ci moom lu baax li ñu xam ci moom te communication média nee na rawatina média bu ne ci internet day dem ba faaw te fu ne lay dem ci àdduna kon média boobu nag na fexe di wax loo xam ni lu rafet rawatina nit koo xame nekkatul ci àdduna nee nag ñu bàyyi loolu xel bu baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen massaw bu baax jërëjëf yaay faadal du ñàkk nga sànnul suñu yaay ay kàddu